serigne dañuy dem jox len sen wal jox serigne sen wal ah mais ba paré nit ñi gëm yalla bo waxé ñu ne la gëmal yalla gis nga papa Alé Niang li muy teg Pape Alé ak am sens serigne xawma maxtum xawma serigne am maxtum nan gëmal yalla gëmal yalla gëmal yalla après mu ne bi xawma lan sa dundin bi séeréer bi ne ko dundin bu ñaf ndem <laughs> xam nga sëriñ Imaam Maxtum bu demee ba saaga dundun bu ñaf ndeem la sénégalais yu bëri du dund gars il faut qu'on dise la vérité la misère au Sénégal c'est c'est c'est c'est pas acceptable man j'étais là-bas 2016 ba 2020 trois ans et demi te pourtant dama yóbbaale sama c'est que man mi ma mënuloon am liguey mais gars yi dund bu ñaf ndeyam la ñuy dund waxuma ko sëñ sëñ maxtum moo ko wax nee na séeréer bee ko wax sa dundin bi mu ne dundin bu ñaf ndeyam lañuy dund Sénégal dundin bu ñaf ndeyam la ñuy dund nit ñi lekkatuñu naanatuñu fonde la ñuy reeree dëkk bi salte na boucher yi ci mbedd mi gars yi heure bu heure bu wax bu jotee dañuy wax de heure jot bu jotee bu jotee man boo gisee ma doon topp kaa bi di ko topp di ko topp mais instant bi damaa dépassé Ndeye Khady Ndiaye parce que wax naa leen ban genre nit la boppam rek lay défendre Adji Sarr bi ñu bëgg jël ñun faalewuñu ndey Adji Sarr ñun Adji Sarr concerné wuñu la bu leen concerné woon du ñu bàyyi mama ba mu nekk fële xam nga du ñu bàyyi mama ba mu nekk fële fële fële ñu bàyyi euh, Khady Ndiaye yow Khady yi nee nga dafa dafay càggatuloo xale yi ba pare nga bàyyi ko nga bàyyi ko mu libre ah dama ne Sénégal eh saaga yi du man de man damay nettali maxtuum la teg sëñ maxtuum mu ne xaw ma leen muñ leen muñ leen muñ leen après mu ne séeréer bi ñu ne ko mu xaw ma mu ne séeréer bi ne